alors euh, wax nga ko wax nga ko sànq euh, vous avez parlé de projet euh, de budget et justement projet de budget boobu euh, projet de loi de finances pour l'année 2023 ñu ngi tablé sur un PIB de dix dix point un pour cent gannaaw jafe-jafe yi nga xam ne am na après Covid euh, guerre en Ukraine bi qui a impacté quand même les importations de de ci li nga xam ne dañ koy dundee généralement tous les jours euh, ce PIB là Euh, gëm ngeen ne peut-être mën na matérialiser wu ci kii parce qu'on parle souvent d'économie extravertie euh, yaakaar nga ne mën na impacter directement ci le quotidien des Sénégalais dans un contexte d'inflation et cetera ça revient peut-être ci li nga wax léegi un gouvernement de. un gouvernement de bah on va pas on revenir. mais bon euh, ce qui est sûr mooy Sénégalais gëmatuñu gouvernement boobu. Mm-hmm. gëmatuñu chiffres yooyu. parce que les chiffres du loo xam ne moom la ñuy fekk dans leur assiette. Euh, bu ñu waxee ci euh, la démarche de Amadou Ba qui est maintenant euh, premier ministre premier ministre hein, et qui a quand même fait ses dans d'autres ministères et qui n'a pas convaincu qu'est-ce qu'il peut apporter de plus il n'a pas convaincu non il n'a pas convaincu s'il avait convaincu le président Macky Sall pas le mettre au frigo lui-même a dit qu'il n'a pas convaincu moo ko njëkk a wax au-delà de Sénégalais yi santiruñ seen bopp ci ministère yu mu yor moom moo ko njëkk demal nga toog hmm. doyoo ma même ci législative moom moo ko ni demal nga toog pourtant 2017 moo ko ne woon kaay jiite 2022 mu ne ko doyoo ma. Mm-hmm. kooku mu ne woon doyoo ma munul matoo kooku la wax kaay te yow yaay jiite combat bi c'est un combat perdu d'avance pour lui. Mm-hmm. lui le sait ñi mu àndal ils le savent je t'ai dit il monte gouvernement buy fen gëmul ay fenam te continuer di fen te du bàyyi fen te mu leer ko ni li muy wax ay fen la ndax xam na ni. combat amul fii xam na ni li mën a changer Sénégalais yi pour ñu dund du di di di dab loo xam ne mënoo ko mënoo di topp ci ginnaaw loo mënul dab. mooy mooy blé bi ngay wax ñun est-ce qu'on a besoin de ce blé pour vivre. Hmm. nga toog ba tey onze ans dix ans après nga ne da ngay wax ne nit ñi consommer local. tu avais dix ans amoon nga fukki at pourtant bañ lay fal 2012 président Macky Sall dafa tegoon ay palaatu laax ñu ko koy defal soow. Hmm. muy wane ni moom dafa bëgg terroir am ñu ko falee ba léegi lan lañ ko gis mu lekk xanaa ceebu jën te ceebu jën boobu sax ceeb bi jógewu fi pourtant on nous a on nous a ñuy wax am nañu autosuffisance en riz ku wax ñu dóor la ne la noppil vallée bi li ñuy bàyyi doy nañu mm-hmm. tey ñoom ñooy ñëw ne noo doyul dix ans c'est une génération xale yu judd woon ya y a dix ans tey xammee nañu xam ràññee nañu mm-hmm. waroon nga mën a tàggat sa askan amul réew buy développé sëñ Abdou Khadre te dundeewul li nga xamante ne ci réewam la doq amul Sénégal boo yeewoo le petit déjeuner sénégalais rek ngay xam ne réew mi parewul pour développer mhm. je ne dis pas avec méchanceté mais c'est la vérité mënoo yeewu ci réew salaamaaleykum suba teel doo doo doo dugub doo ndekkee mhm. ñebbe doo ndekkee mboq doo ndekkee soow te yow lii nga am lii nga am à côté mi doo ko ndekkee demal Côte d'Ivoire bu jege bi mhm. bu nu yeewoo li ñu ndekkee mooy seen banaan aloko yooyu lanu am moom ko avec fierté loolu la ñuy lekk. Sénégal on va à la pâtisserie ça. Sénégal dañuy yeewu na ñun balaa ñuy dund il faut ñu dem lekk mburu mi nga xam ne moomuñu ko. Hmm. mënuñu ci développé wu. déedéet il faut ñu dellu siwaat ci sunu ci sunu bopp ñu xam ni boo yeewoo li li ngay bëgg sa bopp léegi gis naa ko ni ñaa ngi bëgg seen bopp di solu ay solu africain. Hmm. mais def ko ci sa assiette boo yeewoo suba teel. ndekkee ko añee ko. reeree ko na sénégalais bu ne def challenge ci boppam xëy suba benn bis suba ba ngoon mu lekk sénégalais kese mu xool est-ce que mën naa dundee loolu. mais est-ce que les produits sénégalais gënul cher. yi ñuy importer des tax mu gën a cher mooy parce que amuñu doole. parce que kiy bay dugubam benn yoon lay bay ci at bi. Mm-hmm. bu ko bayee def ko ci ay grenier moom lay dundee at bi yëpp. mu ko wanteel. ala ci loolu lay dund. mais bu fekkonte ne leer na ko ni dugub bii dinaa ko jaay ci ñetti weer ma am possibilité bayaat amaat beneen possibilité wala bu dul dugub bi mu mën a bay leneen mais dana ko def te su boobaa dina yomb mais loolu nag njiit moo koy wane ki jiite réew mi mooy am vision boobu mooy am taxawaay boobu hmm. sénégalais yi nag parce que yow mbir mi yow yaa ko wane yoon nit ñi topp la parce que nit ñi c'est pas facile nga changer seen habitude mais nag mën nañu ko changer parce que nag daan nañ ko dundee mais xam nga yii xeetu naxaate taxaw fii yor sa gerte gi nga xam ne gis gisuñu ko. léegi gerte pot 1000 francs lay jar sénégalais gisatuñu gerte gerte gi dañ koy bay génnee ko réew mi. te pourtant diwliñu gerte moo gën ci ci diwliñu végétal yi am mais doo ko gis yi ñu koy jënd yëpp ay diwliñu soja transformé la. ñun suñu diwliñ dootoo ko gisati ñu ngi def effort ñu ngi def effort. ak euh, euh, su euh, Sonacos. Mhm. gis nañu léegi sax yaa ngi gis ay ay marque diwlin ñaan yi ak yeneen. Mhm. ci ci marché bi. mais dafa des. te loolu pour mu des costume crabat yi ngay simmi ci oto yi wàññi budget bi wàññi dépense yi te nag delloo Sénégal njukkal delloo Sénégal liñ la jox ba tey nga jiite leen parce que nag tu ne peux pas être dans un pays bu nga xam ne nit ñi amuñu en moyenne cent mille francs de salaire nga am ay ministres milliardaires. nga am ay fonctionnaires multimillionnaires ce n'est mm. pas possible. mais est-ce que c'est pas justement pour cela que euh, qu'ils ont pris conscience que il y a un combat à mener un combat contre la vie chère d'autres n'est un combat politique d'ailleurs Amadou Ba a appelé à la remobilisation euh, loolu yëpp naka nga ko gisee euh, n'est-ce pas un combat contre trop la vie chère trop tard béy wéy na mbuus jamais trop tard non combat boobu moom mënatu ko mëne te mëni dañ laa jox douze coups à tirer tu as tiré les tu les as ratés il te reste un coup tu dis tu vas tout reprendre tu peux pas. et si l'État est une continuité. l'État sera une continuité. Hmm. mais avec une vision avec d'autres hommes d'autres femmes la continuité c'est ça loolu le Sénégal loolu la war a gëm. Hmm. ay nitam war ko gëm ñu gëm yàlla. te xam ne nag le Sénégal c'est une continuité. munoo nekk ci réew moo xamante ne dafa am ñoo xam ne ñu jàpp ni ñoom rek ñoo mën a doxal bu dul ñoom du keneen mm-hmm. loolu mënul nekk ñoom ñii lañ jéemoon jéem nañ luñ mën wax dëgg yàlla lépp luñ mënoon def nañ ko ils ont montré leurs limites ñun ça des années qu'on dit que euh, mënuñu lu ëpp lii que ils ont ils sont limités oui mais ñoom ils parlent de PSE plan Sénégal émergent horizon 2035 ils seront ils engagent le pays comme ils nous ont engagés dans les dettes. Mhm. a Ba lii la nous a engagés dans les dettes fii la ñu eurobond yi fekk. le ministère du finan euh, des finances nee na on aura encore besoin de plus de mille milliards. daf ñuy engagé engagé suñu ay doom engagé ay génération ci ay bor yoo xam ne du leen fi fekk ñoom. Mhm. du leen fekk ci en tout cas parce qu'ils ont tellement ramassé d'argent que ñoom booba duñ ko yëg loolu moo tax ñuy arrêté l'hémorragie c'est pour ça qu'on est engagé et c'est pour ça qu'on a cette cette cette cette cette envie et c'est pour ça que mënuñu bàyyi. Hmm. d'accord alors euh, euh, ba tey ci ci ci wàllu boobu gis nañu également que euh, il y a beaucoup de critiques yoo xam ne euh, en tout cas opposition da koy def. Hmm. mais on voit jamais de proposition yoo xam ne peut-être ça pourrait aider aider l'État le régime en tout cas à réorienter c'est euh, sa démarche euh, réajuster pour mën a. Euh, apporter de bonnes solutions. c'est pas notre rôle xam nga certes on fait des propositions. faut pas hmm. le dire l'opposition fait des propositions je vois que même sur le budget bi ngay wax euh, nos députés les parlementaires. Hmm. je vois beaucoup de propositions qui qui tournent qui qui circulent mais c'est pas ça le rôle de l'opposition parce que tey on peut pas attendre de l'opposition qui n'a pas le pouvoir qui n'a pas la décision qui n'a pas les politiques de la nation mu indi ay propositions pour ñu doxal. la seule proposition aujourd'hui en 2022, mmh. veille de 2023 qui veille, c'est une proposition d'une autre alternative. Donc d'autres programmes avec d'autres hommes. Parce que on mënoo def du neuf avec du vieux. Mmh. Tu ne peux pas venir dire non, c'est parce que tey euh, mën nañu jël fekk président Macky Sall ne ko non ñun de jàpp nañu ni sa 6400 milliards yi nga bëgg ñu voter la ko assemblée war nga cee def lii ci mbay mi war nga cee def lii ci mbir mi. Euh, est-ce que am na pertinence dinañ ko def parce que suñu député yi loolu lañ fa nekkee ci assemblée ba dekk ñu fa pour bloquer budget bi budget bi su yee dinañ ko càmbar bu ñu gisee loo xam ne ay ay dépenses superflues la dinañ ko dinañ ko rejeter mais dinañ def ay propositions parce que jàpp nañu ni munoo wax ne da nga bëgg a développer sa réew yow li nga def ci sa budget agriculture toll nii par rapport ak li nga def ci budget yeneen yeneen yeneen domaines yi nga xamante ne c'est beaucoup moins important c'est pas possible Mais c'est une vision. Parce que le dernier mot revient à qui Au président de la République. donc opposition bi ku ko wax dara tooñ ko. candidat yi nag foog naa ne ñu ngi wër Sénégal di def seen i proposition hmm. te nag ñun li ñuy def nii asakal néew mooy faire le tour des plateaux. les économistes parlent est-ce que Macky Sall les écoute il n'y avait pas dit depuis début d'année il faut réduire le train de vie de l'État il faut supprimer les institutions. il est en train de le faire non. quand. Avec les, les, voitures des ministres ah, Non, avec, les, avec les, les, téléphones et les voitures mm. et les salaires. C'est des premiers pas, non Oui, mais après, tu, tu, da ngay fàtt fii daaj ji fii. Mm. parce que boo nee da nga wàññi les les les les comment dirais-je les téléphones. Mm -hmm. des des ministres tu, après tu recrutes des postes fictifs un ministre conseiller tu ouvres d'autres brèches est-ce que. un gouvernement pléthorique est-ce que di nga est-ce que di nga ci mën a sotti nga war a wàññi say ministères laa nga ñëw yokk ko. Mm-hmm.